hommage au général may Sélé Ndiaye di serviteur de la nation waaye tamit di gardien de l'honneur ñu mën a xam ne am na ñoo xam ne fii ci mim réew seen njàmbarte ak seeni kattan moom moo leen may duñ leen mës fàtte ci taarixu Sénégal ci ñooña ràññee nañ ci ko xam ne itamit moom it def na lu ne ngir réew mi lee ñu ràññee ko ci lool muy le général sa Sélé Ndiaye mi nga xam ne dundam ak taarixam yépp mën na ñaaxub askanu lëmm mu daal di bawoo fële ko kokki général Ndiaye mii ki nga xamante ne daanaka mu am fierte lool ci li muy daal di def waaye tamit mu daal di siggil Sénégal fu ne ci nation gilimel waaye jaar-jaar gu mucc ayib moo waral ne fépp fu mu mënta jaar ci ay toolu xare ba ci nguur waaye lépp nag ci dal ak tey la ko daal di def ak wone xarañtàngem ba mu àgg général gi mu doon jaar-jaaram yëpp nag ab njàngat la ci service état gi ni mel ci armée Guinée waaye tamit ci république gépp mu jege woon lool njiitu réew mi lee bokk ci ñi koy xelal ci yenn ndogal yu muy daal di jël ay secret de la nation yi mu teel boppam waaye tamit bokk ceeg intérêt mandute gi mu daal di àndal rax ci dolli muy daal di protéger bépp intérêt dëkk bi lee boole ko dëgguwam ci lépp lu muy mës def waaye nag moom mili muy général Ndiaye yemul woon képp ci mbirub nguur gi lee ndax daal na dimbali képp koo xamante ne soxla nga ko dong gi mu daal di bawoo waaye ci Sénégal wërngal këpp yi tamit waaye taxaw gi mu daal di taxaw dëkkam gi muy kokki yi moom moo waral ñenn ñi itamit di daal di roy ci moom ndax lu baax li muy daal di def waaye itamit bépp dëkk bu wërngal këpp dëkk woowa dañ ko ciy bàyyi xel ndax dañuy jàng ci moom ku jug itamit li muy daal ci moom tere gi mu daal di am ci dëkk bile waaye tamit ndimbal gi mu daal di dimbal toute la république waaye nag wërngal këpp tey jii nga xam ne général Ndiaye mi ni mel tey jii lay daal di jël retraitam waaye retraite bien mérité lañ koy daal di tuddee ndax def na carrière bu excellent ba ku nekk itamit boo xoolee di nga xam ne liggéey mucc ayib bi mu daal di def ci réew mi lee bàyyi léppam dundam yépp nekk di protéger la nation tey jii ab sacrifice ki mu daal di def ba àgg ni ni exemple la ci carrière ak génération gii di ñëw taxawaay gini mel kenn du ko fàtte ci taarixu Sénégal moo waxal ne fee mu bawoo jigéen ñi góor ñi mag ñeeg ndaw ñi ku nekk rek taxawu ngir li nga xamante ne moom mooy seen lycée googa ñu daal di ko tuddee may Maïssa Sélé Ndiaye bu Kokki ndaxte tamit dundam wërngal këpp ci njàng dong ak njàngale la ko daal di def te may Maïssa Sélé Ndiaye mii nga xam ne dañ koy daal di wax jaajëf ci liggéey gu mucc ayib bi mu daal di def fii ci mim réew waaye tamit ci àndam ak xarañtàngeem ak i tamit mën li muy daal di def ba noppi di daal di défendre les couleurs de la nation fépp fim réew waaye ci njàngaleem giñ ko daal di le mu mën a xam ne bàyyi fi ab héritage goo xam ne mën nañ cee jàng ba abadan waaye ñeneen ñi itamit ñu mën cee roy muy génération gii di ñëw. kon nag ensemble nous disons bonne retraite au général Maïssa Sélé Ndiaye